فيه من صدر وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit ñi man seen mbokk Seydina Issa Laye maa ngi yëkkati suma muy kàddu yu nuyoo jëmee ko ci suñu kilifa suñu wayjur di suñu baay El Hadji Seydina Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes di ko ñaanal yàlla na yàlla defal ko jàmm yàlla na yàlla dolli ko wér yàlla yàlla guddal fanam di ci teg rakkam Seydi Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Mandior Laay di nuyu rakkam al imam Mouhamadul Bachir ibnu Seydina Ababacar ibnu Seydina Imaam Laay wàccee nuyu bi ba ci suñu waajur Mouhamadul Amin Laye di porte parole famille suñu bàyyi di topp ci moom di Seydi Maam Libaas Laay ibnu Seydina Ababacar Laay di nuyu suñu pap yàlla sédd ñu ko mu yar ñu def jikko mboolem jikko ju rafet ci ñun muy al imam Mouhamadul Muxtaar Laay ibnu Seydina Ababacar Laay ak rakkam Seydi Maam Alassane Laay yal yàlla dolli ko wér ak njaboot Seydina Imaam Laay yëpp góor jigéen mag ak ndaw ñu di ko teg ci suñu loxo mag ju ji nga xamante ne mooy doomu xalifa général des Layènes di Seydi Samba mu ànd ak suñu mag ji nga xamante suñuy woy jur dañu boole seen kàddu boole seen lépp jiital ko ne ñu ñun ñëpp nañu topp ci gannaawam muy as Seydi Ababacar Laay ibnu Seydina Isa Laay ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Limaamu Laay bu loolu weesoo nag ngeen may ba ma nuyu suñu woy jur wacca ci di acheikh seydi aboubacar si mansour yàlla yàlla dëgëral ko di ziyaar di teg suñu ziyaara ci moom mu jàllale ko ci suñu waa kër maam El yépp ñu ngi nuyu suñu wayjur wa ca Tiwaawan ba ca Tuuba di acheikh Muntaxa Mbàkke di ko lewet lool di ko tedd lool di ko ñaanal yal na yàlla yokk jàmm di jël nuyoo suñu waa kër maam Cheikhul Khadim yëpp di ko ko jox ngeen may ma rek ginnaaw bi ma nuyoo ñoom ñi jiite këri diine yi ba pare maa ngi nuyu imaam Mouhamed Ndoye mi nga xamante ne mooy imaamu Yoff di nuyu muxaddami laayeen yépp maa ngi nuyu fépp foo xamante ne imaam nga fa it maa ngi lay nuyu di la ziyaar waaye it di beral nuyoo suñu mbokki journaliste yi ñu jàkkaarloo muy presse écrite di télévision ñu ngi ñaan yàlla yàlla barkeel seen liggéey bi ñu yëkkatee lii boobu ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun du jàppale du ñu topp ngir lii nga xamante ne moom la wax di ko xeex ngir muy intérêt général di mbiru askan wi ngeen bëgg mu sutti ba askan bi jariñoo ñu ngi ñaan yàlla yàlla taxawu leen seen liggéey rafet na ñu ngi leen di masawu coono ci jafe-jafe yi nga xamante ne boobu ba léegi yéen a koy jànkanteel di ñaan yàlla yàlla na ko saafara maa ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoo waral mbir mi muy ñetti collectif yi nga xamante ne mooy collectif bu Ngor bu yoof ak bu wakkaat yàlla dogal ñoom ñooñu nekk ci li nga xamante ne mooy combat bii nga xamante ne moom la ñu sumbal damay wax ne waaye mission la mission bii nga xamante ne moom la yàlla teg ci loxo yi ñetti collectif yi ñu di ko dox may ñaan yàlla na ko yàlla oyofal te may leen ci ndam te nasaxal képp koo xamante ne taxaw nga ngir euh, dox ci diggante loolu nga xamante ne ñetti village yu lébu yi ñu ngi koy dox muy Ngor Yoof Wakaam ngir seen suufi maam yi nga xamante ne ñu ngi koy jël di ko caxat caxatee ah di leen wax ne rek li fi jaar àdduna bi yëpp teg nañ ci seen bët ñépp gis nañu ko waaye li ko waral mooy lii nga xamante ne tudd naa ko muy mbiru aéroport bi ngeen may ma rek ma leeral ndax boobu ba léegi ñu ngi noppi te dañuy wax ne bu nit ñi di wax nga noppi dafay mel ni la wax ànd nga ci gis ngeen ne sortie yi ma génne yépp yéen presse bi yéen journaliste yi yéen a ngi koy gis defe na attaqué wu ma kenn waxuma kenn lu ñaaw ndax kër gii di kër Seydina Limaamu Laay ku ñu xam-xam ne ci ay teggin rek lañu suñu kilifa yi teg ay worma rek la doxe ci tedd nga rek la ñuy moo tax lu ñu ñàkk ci réew mi looloo ñu ko xañ ndax suñuy lewet suñu bëgg jàmm bu ñuy jël ab kaas sax ñu naat ñu ci indil problème ñu bàyyi kaas ba dem uti leneen xëj na nag ñi def loolu dañu doon tàntewaat ngir xool ndax dina yomb nga gis ne sortie yi bi ma mujj def ci télé bu ñuy wax Walfadjri ci ngoon gi TFM jël ci journalu olof bi bi ma fa jógee am benn kilifa wooma ma dem réunion ñetti collectif yi falaa njëkki pour tàggu ngir ñu may ma ma dem daje benn kilifa bu rëy ci dëkk bi ci biir réunion boobu bi may génn lañu ñu signalé ne am na koo xamante ne day ay waa këram nee nañu dinañu la attaqué tey ci guddi yow Seydina Issa Laye dinañu attaqué lenn ci membre collectif yi ñu tudd seeni tur dinañu attaqué kër yi nga xamante ne gis nañu ne doomi collectif membre collectif bi ñu nga ci ñu sant yàlla gërëm ko te xam ne nattu moom buy ñëw rekk nattu la ndax suñuy maam la dund ci ay nattu ñun boobu ba léegi yàlla joxaguñu ko waaw li ñuy dundal yi du asakaaru sax la suñuy maam yi daan dund waaye ñu ngi ciy sant yàlla bu baax bi ma fa jógee dem tëjoo kilifa gi di wax hmm, boobu suma téléphone mu ngi silencieux appel yi bëri lool yëguma ko bi ñu génnee laa ko xool woo jëwriñ bi nga xamante ne moom laa bàyyi suma kër mu ne ma day taalibe yi diw ñëw nañu fi yor ay jaasi ak ay paaka di la menace ne dañu lay rey bi ñu fa jugee ñu xam ne foofu dëgër la ci lañu ñu dem suma benn kër mag bu ñuy wax soxna Sadio Laay bintu Baye Seydi Thiaw Laay bu Seydina Mandione bu Seydina Limaamu Laay ñu fekk fa xale ya ñu menacé leen ak seeni jaasi ak seeni paak ak ay nervi biñ fa jugee nag ñu jubal kër imam Muhammadul Muxtaar Laay fa la dem bi ñu demee kër imam Muhammadul Muxtaar Laay ñoom it attaqué waa kër ga muy njabootu kilifa googu ma lay wax ak benn nit koo xamante ne mu ngi fii ci Yoff ñu am seeni nervi ñu ànd ak taalibe yooyu di ma wër loolu moo indi woon mbir mi bi ko saxaabay Seydina Limaamu Laay déggee gis ne loolu du woon première fois boobu rek ndax ki def waa ji def loolu ay jamono cantaal doon nañ cantal suñu waajur fii Chérif Abdoulaye ci penc mi mu daal di defoon lu mel noonu ba waa këram yi indi fi génn fi ay jaasi génn fi ay paaka ak lu loolu ñépp xam nañu ko appelu Seydina Limaamu Laay fii ci cérémonie officielle yi waa këram yi doon nañu fii pompe à gaz moom waa jooju yéen ñëpp xam ngeen ku ñuy wax maas mbay ca ngapparu ci dëju woy juróom attaqué nañu ko même nit ñooñu ci ay jaasi ak i paaka ak leneen ak leneen lu mel noonu damay wax ne ba ci jàngi doole lislaam sax boo leen fàttee indi woon nañu fa bruit bu mel noonu man maa nekk ndaw loo xamante ne man Seydina Issa Laye man la ñu mujjee attaqué waaye nag jàllul ndax li tax jàllul kër gii de am nañu respect lool am nañu worma lool am na nañu teddanga lool waaye ni ko suñu mag ji waxee waaye kër la goo xamante ne duñu nangu mu ñu di ko déstabiliser di jaar ci njabootu Seydina Limaamu Laay te déstabiliser boobu yéen ñëpp xam ngeen ni mu ngi jëkkee ci benn doom bu tànk boo xamante ne mu ngi jëflante ak le président de la république ci ministère am la convoqué jox audience ñetti collectif yi ba ñu ñëwee man nekkuma woon ci audience ba ñu waxtaan la ñuy waxtaanee ba noppi ba ñuy paree bay ñaan mu ne leen balaa ngeen a ñaan may leen ma ma sànni ci ma sànniwaat ay kàddu ñépp di ko déglu mu ne dama bëgg ngeen wax Seydina Issa ak ñi mel ni moom ci kër maam Limaamu Laay soi-disant les petits marabouts yoo xamante ne tekkiwuñu dara ci yoof nañu téye seen gémmiñ ndax man duma seen morom loolu nag damay wax ne aw saaga la woo xamante ne Seydina Limaamu la ko adressé ndax Limaamu dafa waxoon ne ginaar nen na nen ya naan ni naan ginaar na nen toj toj nen ya naan ko ñu ne ko Limaamu loo bëgg a wax foofu mu ne lépp lu ma jur rek Limaamu la kon maa ngi interpeller le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ci ay teggin ci worma ci teddal ne ko menace bii nga xamante ne moom la jëwriñam boobu def jëmale ko ci kër Seydina Limaamu Laay naka gaaw faj nu mu gën a gaawee bu jaree ay sanction la na jël ay sanction yu wóor mu tekk ci kawam wala lu ko may ñun njaboot kër Seydina Limaamu Laay dinañ xam ne dañuy dinañ xam ne kon naar bu ndaw bi lii mu wax ci naar bu mag bi la ko déggee ah bi loolu amee nag ci la taalibey Seydina Limaamu Laay saxaaba yi taxaw nag ne lu ëpp tuuru dinañu ko dakkal comme ni ko suma mag ju tedd ji nga xamante ne boobu ba léegi lu mus jóg ba ci keroog bi ñuy taal Auchan yi moom mii bokkoon na ci ñu taxaw moom Seydina Ababacar Laay ibnu Seydina Isaa ibnu Seydina Mandione ibnu Imaamallah ne maa ngi leen di ñaan dëkk bii di dëkkab Seydina Limaamu Laay bu fi dara tàkk bu fi dara jóg na lépp sedd na lépp woyof kon kër gi ngeen xam ne yàgg nañu wax yàgg nañu woote jàmm ah fi may tëj suma waxtaan ci bi nga xamante ne événement yooyu am na ba xale yi xeex yàlla dogal na mu am tuuti ay blessure rek yoo xamante ne damay wax ne euh, mittiwul waaye ñu ngi massaw képp koo xamante ne jëli ci gaañ gaañ ci bis boobu. maa ngi gërëm communauté Layène bi yépp ndax bi ñu déggee loolu rekk lu gaaw gaaw Yoof Ngor Wakaam Ndakaaru dama ne fu Layène nekk te jege te mën a gaaw ñëw rekk defe naa jël nga oto ñëw fii ci dëkk bi kenn xaju fi woon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen masaw waaye it maa ngi masawu waa Yoff gépp maa ngi leen di baalu àq ci tuuma googu nga xamante ne tuumaal nañu ma ko te man ku ma xam-xam ne du ma ni tuub ay ci jàmm rek laay dox maa ngi gërëm mbokk yi nga xamante ne ñoom it bi ñu déggee li ne taal nañu sama kër jege ñu sax sama kër mosuñoo taal suma kër waaye ba ñu waxee loolu damay wax ne bitim réew ak biiram réew mii di senegaal yépp ñépp a nañu ma masawuma xamal ma ne ñu ngi ci suñu gannaaw di ñu jàppale kon daal maa ngi wax ne man Seydina Issa Laye ci sumay ndigali kilifa ci seeni ndigal ak seeni ñaan maa ngi leen di wax ne jox nañu ma ndigal ne ma lii nga xamante ne maa ngi koy liggéey ak ñetti collectif yi naa ko continuer dëggal ko lépp loo xamante lépp loo xamante ne taxawaay la bu ci kër Seydina Limaamu Laay war a am naa leen ci taxaw dinañu accompagner ak ay ñaan te fépp lépp loo xamante ne taxawoon naa ko ci incha allah dinañu gën a yokk yokk yokk ba ñu xam ne lii ñuy xeex intérêt Yoff la intérêt Ngor la intérêt Wakaam la ndax ñun ñii di ñetti collectif yi ki mujjee juddu tey jii ci ñetti dëkk yi ñu ngi xalaat a am bu ëllëgee moom ak ak njabootam moo tax ñu xalaat ne aéroport bii dafa nekk réserve boo xamante ne dafa war a doon patrimoine lébu gi te loolu suñuy kilifa yi nga xamante ne ñooy waa kër Seydina Limaamu Laay am nañu conscience tranquille ci loolu ñu ngi ñuy ñaanal di ñu gërëm ah fi nga xamante ne nag moom laay mujjee it mooy di gërëm ñi nga xamante ne ñëw nañu wéttali ñu ci jotaay bi ginnaaw bi ñu gërëmee njaboot Seydina Limaamu Laay maa ngi jiital ci ngërëm li maam Matar Gueye di rafetlu lool sa taxawaay ci dëkk bi nga xamante ne mooy réew mii di Sénégal yàlla na yàlla dëgëral la maa ngi ñaanalit suma mag El Hadji Abdoul nga xamante mu ngi yor comité scientifique ci 121 village yu lébu yi nga xamante ne boo ko adatee cent cent vingt et daf lay jox allah mu jiibu mooy yàlla wuyul kon loolu am solo la ñu ngi ñaan li ngeen mébét ci Dakar yàlla leen ci yàlla wuyu maa ngi gërëm it suma xarit jëmm ji nga xamante ne man ak moom benn lañu mooy le président Birame Gningue di ko ñaanal yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam moom li tax mu teew fii taalibe la fi ñëwee ndax Seydina Limaamu Laay rek moo ne ci xolam ñu ngi ñaanal sunu doom ji nga xamante ne mooy Seydina Isa Laay di doom ci suñu bàjjen Maam Kumba bu Seydina Ababacar Laay bu Seydina Limaamu Laay nga xamante ne moo fi représenté euh, coalition taxawu Sénégal jiit nekkal leen ci dëkk bii nga xamante ne mooy dëkk bi di yoof moom it ñu ngi ñaan yàlla yàlla dimbali ko dooleel ko ba lépp mu mel ci dëkk bi yàlla defal ko maa ngi gërëm suñu xarit Moustapha Tall bu APR di suñu xarit di suñu wóllëre ñun ay nitu jàmm lañ an bañuñu kenn te ñoom ñu am wóllëre lañ ñu am respect ci kër Seydina Limaamu Laay kon président Macky Sall sa njaboot gi ku mel ni Moustapha Tall ku mel ni Mamadou Gueye Ouest Foire nga xamante ne ñu ngi taxaw di laaj li ñu bëgg ci dëkk bi ñu ngi wax le président son excellence monsieur Macky Sall ñoom day sag njaboot lañu waaye ñu am worma lañu ci kër Seydina Limaamu lañ ñu respecté kër Seydina Limaamu lañ waaye ñuy diisoog ñun lañ ñuy waxtaan ak ñun lañ ci dëkk bii nga xamante ne mooy payem Seydina Limaamu Laay kon ñu ngi di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla yokk seeni ah, maa ngi ñaanalit suma wayjur wi di Seydina Issa Laay Ba nga xamante ne moom it les fatigables laa koy tudde mu ngi ci mission bi ñu ngi ñaan yàlla na yàlla dooleel leen gis nañu seen soutien bu baax yàlla na yàlla taxawu leen maa ngi ñaanal it Babacar Babacar mu ngi nii taxaw nga xamante ne moom moo fi taxawal président Karim Wade nga xamante ne wax dëgg yàlla moom it ku am solo ku am warma la ci kër gi ñu ngi ñaan warma gi ngeen ñu jox yàlla na yàlla fay leen ko ah defe naa daal foofu laay tëjee ndax xol yi sedd nañ damay wax ne sax dara mosu fee am te dara méttiwul ñun ñu ngi dund noo stress ndax ñu ngi dëkk ci keppaaru géej bu ñu xëyee gis suñu maam Seydina Limaamu Laay rek bëgg nañu bu ñu gëstoo dox tuuti jàkkaarloog doomam ju tedd ji di yonti yàlla isaa rek ci jàmm rek la ñuy dund fii daal ñu ngi leen di xamal ne dëkku jàmm la dëkku teddanga la dëkku teraanga la loolu daal moom la ñu doon jàllale di ñaan ñu ngi ñaanal it maam euh, Cheikh maam Cheikh bi nga xamante ne moo nekk Réveil euh, association Réveil ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm suma euh, grand sëriñ Yoff mu El Hadji Yuusu mu ngi nii toog ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di wax ne lépp lu ci dëng ngeen jéggal te xam ne nit moo matul lépp lu ci jub ngeen xam ne yàlla di wax ne subhaana rabbi rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin